asalaamaaleykum ah, mbokk yi wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah Haj ngi leen di nuyu yéen ñëpp di yëkkati ay kaddu nee di yëkkati ay kaddu ci ndigalal eh, sunu sëriñ ci ndigalal sunu sëriñ di sunu doomu sëriñ itam di sunu doomu sëriñ itam di Cherif Sidi Ahmed Tijani si di sëriñ Cherif Sidi Ahmed Tijani si bu Mawlana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu wa nawwara dariihahu bil anwaari wan nafahaati wa arrabbaaniyati loolu yomb na yàlla te inchaa allahu yàlla def na ko ci mbaaxam ak yërmandeem ak yërmandeem ak ñeewantam moom itam mu wuutu ci ay kilifaam moom sëriñ Sidi Ahmed si itam mu wuutu ci mbir mi ay kilifaam tàmbalee ko ca xalifa ba tàmbalee ko ca xalifa ba di sëriñ Mouhamadul Mansour si di sëriñ Mouhamadul Mansour si xalif général de ak rakkam yëpp sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Maktoum sëriñ Abdul Aziz Al Amin sëriñ Abdul Aziz Al Amin sëriñ Babacar Mouhamad Al Mansour sëriñ Babacar Mouhamad Al Mansour ak Cheikh Al Hadj Malick si Maodo ak Cheikh Al Hadj Malick si Maodo mi nga xam ne waxtu wii mi nga xam ne waxtu wii moo ñu daan defal waxtaan bu ñu xadra ba noppi moo ñu daan defal waxtaan bu ñu masaana def xadratul jumaat ba noppi fii solo waxtaan yu am solo nag delloo ci yàlla mu delloonu ca yàlla moom Haaj Malick Maodo waxtaan woo xam ne ruux dana ci dunde waxtaan woo xam ne ruux dana ca dunde ak bokk dana ci dunde ak bokk dana ca dunde lépp lu naroon a yàqu dana ci yéwéne lépp lu naroon a yàqu dana yéwéne ca waxtaan woowee nu Haaj Malick si Maodo di waxtaanal fii ndax doomu aadama dafay tollu ndax doomu aadama dafay toll foo xam ne foo xam ne doon oto la. bu fekkoon ni doomu aadama booba oto la. batterie ba koy jox courant. batterie bay jox oto ba courant. dañu naan dafay dem ba vide. dañu naan dafay dem ba batterie ba jeex. dafa laaj ñu ñu rechargé waat ko. batterie boobee bu jeexee dafa laaj ñu dolliwaat ko kattan te mooy sarse ko. ba nga xam ne booy contact rek muy tàkk. ba nga xam ni booy contact rek oto bay tàkk. nit dana àgg foofu ci vide. nit dana àgg foofu ci vide. li boroom xam-xam yi di wax alfaraax. li boroom xam-xam yi di wax alfaraax. arruuxi. arruuxi. wal maanawi. wal maanawi. dana dab doomu aadama. dana dab doomu aadama. da ngay dem ba woyof toy. da ngay dem a dem dem ba woyof toy. yëg ni yow mi. yëg ni yow mi. jekku na la. seytaane jekku na la. jatang say tànk. jatang say tànk. sawar ci dem jàkka. dootoo sawar ci dem jàkka. doo sawar ci julli mbooloo. doo sawar ci julli mbooloo. doo sawar ci toog jàng Alqur'an. doo sawar ci jàng Alqur'an. doo sawar ci yore sa kurus. doo sawar ci yore sa kurus. doo sawar ci jokk mbokk. doo sawar ci jokk mbokk. doo sawar ci dem seeti ku feebar. doo dem seeti ku feebar. doo sawar dem armeel ya ziyaare sa mbokk yëla fa jiitu doo sawar dem armeel ya ziyaare néewi julit yëla jiitu tëdd fa moo tax yàlla ne moo tax yàlla ne wa man yaashu an dikri rahmaani an dikri rahmaani nuqayyid lahu shaytaanan nuqayyid lahu shaytaanan fa huwa lahu qariin fa huwa lahu qariin nit dana dem ba shaytaane nekk wéttalam nit dana dema dem ba shaytaane nekk wéttalam te loolu la koy waral te loola la koy waral mooy bàyyandiku mooy bàyyandiku ci wàll yëpp ci wàll yëpp yàlla na nu ci yàlla boole musal defee jataay yii nag. nee bu ko defee jataay yu mel ni yii nag. ñu bàyyi ko. ñu bàyyi ko. mbooloo mu toll nii mbooloo mu toll ni mbooloo mi fi daje kaar. bàyyi ko ci ay gox yu wuute. bàyyi ko ci ay gox yu sori yu wuute. te ñoom ñëpp li leen rëgët. te ñoom ñëpp la leen rëgët. moo di. ba tax leen jóge ca gox yooya moo di. xol yu fees dell. xol yu fees dell. ak ngëm yàlla. akuk ngëm yàlla sopp rasulullahi ak sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daje fi ci waxtu wi ñu fi daje daje fi ci waxtu wi ñu fi daje muy ngoonu ajjuma muy ngoonuk ajjuma nga xam ne nga xam ne bi jëf ci semaine bi yëpp li jaam bi di jëf ci semaine bi yëpp ci waxtu woowu ci waxtu woowu la ko yi di tëj la ko malaayika yi di tëj di di ko dem di yóbbu yóbbul seen boroom yóbbul ko seen boroom jaam bu nekk jaam bu nekk yàlla yàlla mi ngi sa dossier mi ngi ak say dossier diw doomu diw doomu ak diw juddu bi sàngam waxtu sàngam waxtu sàngam barab sàngam barab sàngam dañu lay fichier ñoom dañu lay fichier xammee la xammee lu tur yi niroo niroo lu tur yi niroo du ñu jaawale kenn du jaawale turu kenn ak moroom ma defee nag. su ko defee nag. ak bisu ajjuma ni mu rëyee. ak bisu ajjuma ni nga xam ne sallallahu nga xam ni sang ba sallallahu alayhi wa daana wax ne. wax ne. bis bi gën ci bis yi. bés ci bés yi. mooy bisu ajjuma. fa tabaarakallahu. sunu maam Adama ci bis bi lañ ko bind. ci bisu ajjuma bii lañu ko bind. fa tabaarakallahu. yëpp ak ya ca aju yëpp ak ya ca aju yëpp mbooloo mu toll nii tase mbooloo mu toll nii tase di tudd yàlla di tudd yàlla alladina yadkuruuna allaha alladina yadkuruuna allaha qiyaaman qiyaaman wa وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا ما باطلا خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار أمين ci beneen aaya ca beneen aaya ba ca suuratul ahzaab ca suuratul ahzaab yàlla ne yaa ayyuha alladina aamanu yàlla ne yaa ayyuha alladina aamanu udkuru llaha udkuru llaha zikran zikran kathiran kathiran wasabbihuhu wasabbihuhu bukratan bukratan wa asila wa asila هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات من الظلمات إلى النور إلى النور وكان بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما رحيما Sayyidina Abdullahi Ibnu Abbas ne Sayyidina Abdullahi Ibnu Abbas ba muy firi aaya boobu ba muy firi aaya boobu daf ne dafa ni aaya bu doy waar a ngi nii. bu doy waar a ngi nii. tudd yàlla. tudd yàlla. yàlla bàyyiwu ci kenn. yàlla bàyyiwu ci kenn. ki feebar. ki feebar. ki wér. ki wér. ki am. ki am. ki amul. ki amul. kiy tukki. ki teew. ki teew. mat ndaw ndaw kilifa kilifa ak kamu yilif ak kamu yilif ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoo yam ci tudd yàlla suba suba ngoon ngoon guddi bëccëg bëccëg sax leen ci sax leen ci tudd yàlla yàlla ne su ngeen ko defee yàlla ni lool yi de su ngeen ko defee moom ak ay malaakam moom sunu boroom ak ay malaayikaam danañu julli ci ñun danañu julli ci ñun lu tax lu tax ngir génne ñu ci lëndëm ngir génne ñu ci lëndëm dugal ñu ci leer dugal ñu ci leer huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu huwa huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu bokkul ak bokkul ak inna allah wa malaikatahu inna allah wa malaikatahu yusalluuna ala nabi fii fii pour yàlla defal ñu loolu pour yàlla defal ñu loolu il faut que ñu il faut que ñun ñu sax ci tudd yàlla. il faut que ñun ñu sax ci tudd yàlla. yaa ayyuha alladina amanu. yaa ayyuha alladina amanu. uzkurullaha. uzkurullaha. ba aaya ba jeex. ba aaya ba jeex. su ngeen ko defee. su ngeen ko defee. huwa alladi yusalli alaykum. huwa alladi yusalli alaykum. kon am na qayd. kon am na qayd. am na tënk. am na tënk. am na chart. am na chart. waaye bu dee ci inna allaha wa malaikatahu. waaye bu dee ci inna allaha wa malaikatahu. foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawee ku dul moom. foofu la sang ba yonent ba sallallahu alayhi alayhi wa sallam fala rawee kudul moom. amul tënk amul tënk. amul charte amul charte. ba yàlla dee yàlla ba léegi. ba yàlla dee yàlla ba léegi. te yàlla musul dañ di yàlla. te yàlla musul dañ di yàlla. fa zaatullahi tabaaraka wa taala. fa zaatullahi tabaaraka wa taala. zaatun. zaatun. qadiimatun. qadiimatun. azaliyatun. azaliyatun. munazzahatun. munazzahatun. ani ani naqaa'isi. ani naqaa'isi. wal cilali. wal cilali. wal aafaat. wal aafaat. ba yàlla dee yàlla ba léegi. ba yàlla dee yàlla ba léegi. salaatu boobu mu def. salaatu boobu mu def. moom ak ay malaakaam. moom ak i malaayikaam. ñi ngi bokk. ñi ngi bokk. di ko def. di ko def. ci sallallahu alayhi wa sallam ci sallallahu moo tax sallallahu ay mbiram doy waar. moo tax sallallahu alayhi wa sallam ay mbiram doy lu jiitu muy nekk nit. lu jiitu muy nekk nit. leer la woon leer la woon. leer goo xam ne. leer goo xam ne yamul ci leer. yemul ci leer. yàlla dafa yar leer ga. yàlla dafa yar leer ga. defar ko. defar ko. façonné ko. façonné ko. ba noppi nag. ba noppi nag. jox ko ndigal. jox ko ndigal. ne ko deema sàbbaal. ne ko yow leer gii man sa boroom deema sàbbaal. deema jaamu. deema jaamu. moo tax sallallahu alayhi wa sallam. moo tax sallallahu alayhi wa sallam. dox toog ay kiiraay yu bare bare bare toog ay kiiraay yu bare bare nangami junni at nangami junni at ci at yoo xam ne yàlla rek xam. ci at yoo xam ni yàlla rek a xam. ndax sunuy at yàlla bokkul. ndax sunuy at ak ati yàlla bokkul de. yàlla nee na. yàlla nee na. wa inna yawman. wa inna yawman. inda rabbika. inda rabbika. ka alfi sanatin. ka alfi sanatin. mimma taudduun. mimma taudduuna. bés boo xam ne. bés boo xam ni. ci ñun. ci ñun. ñaar fukki waxtoog ñeent la. ñaar fukki waxtoog ñeent la. suuf si. suuf si. mooy daw di wër boppam. mooy daw di wër boppam. di daw di wër jant bi. di daw di wër jant bi. guddeeg bëccëg di ci bàyyi ko. yéeg bëccëg di ci bàyyi ko yuuliju layla fi nahaar yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaara fi layl waaye bis fa yàlla waaye nag bésub yàlla de bokkul ak bésu bokkul ak bésub àdduna de ka alfi sanatin ka alfi sanatin vingt quatre yoo xam ne ci ñun vingt quatre heures yoo xam ne ci ñun mi ngi toll fa yàlla mi ngi toll fa yàlla mille kon bokkul kon suñu bés ak bésu yàlla bokkul de. te kooku fii ci àdduna la. te loolu fii ci àdduna la. waaye bu dee ci àllaaxira. waaye bu dee ci àllaaxira. ci suuratul maarij. ci suuratul maarij. fii yawmin. fii yawmin. kaana miqdaaruhu. kaana miqdaaruhu. xamsiina alfa sanatin xamsiina alfa sanatin. bis bopp. bis bopp. dana am équivalence. dana am équivalence. cinquante mille ans. cinquante mille ans. fa tabaarakallah fa tabaarakallah. leeru sallallahu alayhi wa sallama. leeru sallallahu alayhi wa sallama. nekk ci kiiraay yooya. nee dafa nekk ci kiiraay yooya. kiiraay bu nekk. kiiraay bu ne. lam fa sax. lam fa sax. ak xeetu sabbaal ba mu fa doon def. ak xeetu sabbaal ba mu fa doon def. tax sallallahu alayhi wa sallam moo tax sallallahu alayhi wa sallam nee na. ba may xam ne yonent laa. ba may xam ni man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent laa. tamaay xaatamu nabiina wal mursalina tamaay xaatamu nabiina wal mursalina. nee na booba Adama. nee na booba Adama. alayhi salaam. alayhi salaatu wa salaam. mi ngi nekk ban. mi ngi nekk ban. bu wow korong. bu wow korong. kenn defagul ruux ci moom. kenn defagul ruux ci moom. ba muy am yëg. ba muy am yëg. bay xam yàlla. bay xam ni doomu aadama moom doomu aadama la bay xam yàlla. kon sallallahu alayhi wa sallam mooy kilifa ñépp wa kaana nabiyan bi nubuwati aliman wa aadamu bayna almaai wa tiiniha wa innahu is arada allahu nasatana abana min nuurihi nuuran bil alami nuurun min annuuri qad awdatu xikaman tafiidu faydan alal axlaaqi allahu moo tax sallallahu alayhi wa sallam bu leeram ñëwul woon ne moo tax sallallahu alayhi wa sallam bu leeram ñëwul woon adduna bi dafay des ci ak ñàkk adduna bi dafay des ci ak ñàkk law lam yalux law lam yalux fi fadaa'il kawni fi fadaa'il kawni tal'atuhu tal'atuhu tabqal bariyati tabqal bariyati fi dalmaa'i yàlla yal nañ ko yàlla fayal Sidaaji Malick yal nañ ko yàlla fayal amiin yaa rabbal aalamiin tabaarakallahu sallallahu alayhi wa sallam kon ba yàlla tàmbalee julli ci moom kon jamono ba yàlla tàmbalee julli ci moom kenn xamul kañ kenn xamul kañ xanaa ba yàlla dee yàlla xanaa ba yàlla dee yàlla ndax inna allaha la wax ndax yàlla dafa wax inna allaha yàlla mënoon naa wax allahu. ne yàlla mënoon naa wax allahu. mu nekk mubtada. mu nekk mubtada. wa malaikatuhu wa malaikatuhu ñu ataf ko ci ñu ataf ko ca yusalluuna ala nabi yusalluuna ala nabi yusalluuna yusalluuna nekk fi'lu mudaari nekk fi'lu mudaari fii mahalli rafin fii mahalli rafin di xabaru mubtada di xabaru mubtada kon wax bu dëgër lay doon kon wax bu dëgër lay doon waaye itteel gu mu itteel yàlla waaye itteel gu mu itteel yàlla moo tax mu tàmbalee ko inna moo tax mu tàmbalee ko inna dañuy jàng jàng naxwu jàng bayaan jàng bayaan xam nañu inna bu tàmbalee wax ne dafay dafay feddali. xam nañu inna bu tàmbalee wax ni dafay feddali. inna. inna. xarfu tawkiidin. xarfu tawkiidin. wa nasbin. wa nasbin. dafay nasab lisim. dafay nasab lisim. di rafaa xabar di rafaa xabar. allah. allah. di ismu yàlla di ismu inna. ñu nasab ko. ñu nasab ko. allah allah wa malaikatahu wa malaikatahu ñu ataf ko ci ñu ataf ko ca bu la neexee nga ne bu la neexee nga ne wa malaikatuhu wa malaikatuhu waaw gi nekk waaw istinafiya waaw gi nekk waaw istinafiya malaikatuhu di mubtada malaikatuhu di mubtada yusalluuna yusalluuna di fi'l ak fa'il di fi'l ak fa'il fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in di xabaru di xabaru mubtada mi mubtada mi waaye nag nasab gi moo gën waaye nag nasab ga moo gën inna allah inna allah malaikatahu wa malaikatahu ca dëgg-dëgg dëgg-dëgg yàllaay fedd li de yàllaay fedd li de man yàlla man yàlla xoolal yàlla ni mu xool leen yàlla ni mu réyee bi yàlla ne bismillahi bi yàlla ne bismillahi mbokk yi mbokk yi bu ci yàlla yemoon bu ci yàlla yemoon adduna bépp béppay lakk adduna béppay lakk ndax baatu allah ndax baatu allah mooy turu yàlla dëgg-dëgg dëgg-dëgg ni yàlla màgge ni yàlla màgge tur woowu noonu la màgge tur woowu noonu la màgge bu ci yàlla yemoon bu ci yàlla yemoon adduna bi léppay lakk addina bu léppay lak la tadagdaka al aalamu la tadagdaka al aalamu wal xarq wal xarq dafay lakk dafay lakk. ni karaw di lakkee ci safara. ni karaw di lakkee ci safara. kon adduna bi noonu lay lakkee. bu yàlla ni woon bismillahi yam ca kon noonu la adduna bi di lakke waaye mu dabaatal. waaye nag sunu borom dabaatal. arrahmaani. arrahmaani. ki ko gëm. ki ko gëm. ki gëmul. ki ko gëmul. kiy julli. ki dul julli. ki dul julli. kiy fen. kiy fen. kiy rambaaj. kiy rambaaj. kiy sàcc. kiy dox tànki caaxaan. kiy dox tànki caaxaan. yàlla boole ñëpp. yàlla boole ñëpp. di xéewal. di xéewal. dama dem ba gëmul yàlla. dama dem ba gëmul yàlla sax mën naa ëpp teraanga ki mën naa ëpp teraanga ki gëm yàlla li ko waral loolu li ko waral moo di rahmaaniyatu moo di rahmaaniyatullaahi bu dul woon ak loolu bu dul woon ak loolu kon caaf xam kon caaf xam de yamu ca bu dul woon ak loolu kon caaf xam yàlla yamu ca nag mu indi mu indi arrahim kon bu yàlla kon bu inna allaha dafay mel ni. dafay mel ni. la yàlla am. la yàlla am. te gis nga fii inna allaha la wax. te nag fii dafa wax ni inna allaha. ismu zaat bi la indi. ismu zaat la indi. fee mu ne huwa alladi. fee mu allah. ak huwa. ak huwa. ban moo ëpp doole. ban moo ci ëpp doole ah xanaa allah. kon sallallahu alayhi wa sallam du sunu morom. kon sallallahu alayhi wa sallam du sunu morom de. bi yàlla di wax ak ñun. bi yàlla di wax ak ñun. daf ne huwa alladi yusalli alaykum. dafa ne huwa alladi yusalli alaykum. bi muy adressé yonent bi. bi muy adressé sang ba nag sallallahu alayhi wa sallam. di illustrer maqaamam. di illustrer maqaamam. daf ne inna allah. daf ne inna allah. ngand mi ngand mi ponkal mi ponkal mi yàlla yàlla borom màgg gi borom màgg gi borom jalaali yëtu borom jalaali yëtu borom jamaali yëtu borom jamaali yëtu borom kamaali yëtu borom kamaali yëtu borom azamatu borom azamatu borom qudratu borom qudratu qudra qudra mutlaqa mutlaqa laa mutanahiya laa mutanahiya laa bidayata laha laa bidayata laha wala nihayata wala nihayata laha ak li mu am ci ay attribut ak li mu am ci ay attribut muy ay sifaat muy ay sifaat di sifaatul jalaali di sifaatul jalaali wal jamaal jamali wal jamali wal kamali wal kamali dafa mel ni yàlla dafa tëb dafa mel ni yàlla dafa tëb ànd ak dooleem ànd ak dooleem kattanam ak kattanam ak li mu yilif yëpp ak li mu yilif lépp ni maag samay malaayika ni maag ak kooru malaayika yëpp ak kuru bi yuun yeeg kuru bi yuun yeeg kiraaman kaatibiina kiraaman kaatibiina yeeg ñi yore taw beeg ñi yore taw beeg ñi ngelaw leeg ñi yore ngelaw leek ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñi ngi julli ci yonent ñi ngi julli ci sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nañ julli ci yonent bi mbokk yi leen julli ci bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع وصليا يا إلهي واجزيا عبدا عنا محمدا المختار ذي القدمين yàlla am temps du ko tënk du ko tënk. te sunu boroom temps du ko tënk. place du ko tënk. place du ko tënk de. yàlla ngi fii. yàllaa ngi fii. nekkul fii. nekkul fii. yàlla amoon na démb. yàlla amoon na démb. tey amul. waaye amul tey. ëllëg du am. ëllëg du am. loolu déedéet. temps. temps. espace. barab barab. yii yii. yàlla. yàlla. jukki na ca boppam. jukki na ca boppam. ñun la temps tënk. ñun ñii di mbindeef yi la temps tënk. ci jàkka ndax ñun ñii nekk tey ci jàkka ji. ak ñi ci biti. ak ña ca biti. ak ñi ci jagsaaw. ak ci dëkk bi ci jagsaaw. ku ñu doon wër tey. ku ñu doon wër tey. mënoo lamb sunu jëmm yi mënoo lamb sunu jëmm yi. fudul fii ci jagsaaw fudul fii ci jagsaaw. ak fii ñu toog ak fii ñu toog. boo bëggoon a dem tey Tiwaawan. a dem tey Tiwaawan. bëgg faa seeti Chérif Haydara mi bëgg lamb jëmmam boo doon wër Tiwaawan ba mu jeex. doo ko fa daj doo ko fa daj. fii rek jagsaaw gii mu ne. waxtu wi ñu toog waxtu wi ñu toog. fii fii ci biir jàkka ji ci biir jàkka ji fi nga mën a lambe shérif fi nga mën a lambe shérif daj ko fi daj ko fi kon shérif kon shérif tënku na ci temps tënku na ci temps tënku na ci jamono tënku na ci jamono tënku na ci barab tënku na ci barab ndax nit la ndax nit la waaye yàlla waaye yàlla amul temps amul temps amul barab amul barab amul fenn amul fenn foo koy làmb ba daj ko ba daj ko te mi ngi fépp te mi ngi fépp allah te mi ngi fépp. te yàlla sunu borom mi ngi fépp. wa huwa alladi. wa huwa alladi. fi samaai. fi samaai. ilaahun. ilaahun. wa fil ardi. ilaahun. booy dem ci kaw. booy dem ci kaw. fekk fa yàlla. fekk fa yàlla. nga ñëw ci suuf. nga ñëw ci suuf. fekk fi yàlla. fekk fi yàlla. boo ne woon nii. boo ne woon nii. Serigne Maodo nee na. Serigne Maodo nee na. papaam. mas na toog ak moom. mas na toog ak moom. ni nii. ni nii. ne ko Haj Malick lan laa téye. ne ko Haj Malick lan laa ngëpp. mu ko papa xaw ma ko. mu ne ko papa xaw ma loo ngëpp. mu ne ko yàlla laa ngëpp. bàyyi. bàyyi ne ko lu ma bàyyi mu ne ko yàlla fa tabaarakallah kon mbokk yi Serigne Makhtar ne yàllaa ngi fépp ne kon inna allaha wa malaikatahu kon amul benn jamono amul benn jamono booy mën a toog di ko xalaat mën a toog di ko xalaat lu dul jamono booba lu dul jamono booba yàlla nee na moom ak ay malaikaam ba mu leen bindee ba mu leen bindee ba léegi. ñoom ba ñu amagul ñoom ba ñu amagul. ak ba ñu amee ak ba ñu amee. lépp lépp yàllaa ngi julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nee te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nee nañu. nee nañu asalaatu ala nabii sallallahu alayhi wa sallam asalaatu ala nabii sallallahu alayhi wa sallam maqbulatun maqbulatun qataan qataan julli ci yonent bi julli ci yonent bi noo ko mën a defee rek noo ko mën a defee rek yàlla daf koy nangu nangu la gu la yàllay nangul sallallahu alayhi boo ko doon def ngir ngistal même boo ko doon def ngir ngistal sax dañ la ciy bindal yàlla daf koy nangu bindal la ci tuyaaba daraja yonent bi ndax daraja yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moo toll noonu. kon tudd yàlla. kon tudd yàlla. lu am solo lu ama ama am solo. yàlla nee na ala bi zikrillahi. yàlla nee ala bi zikrillahi. tatma innul qulub. tatma innul qulub. jamono bii ñu toll. jamono bii ñu toll. crise yi am ak crise yi am ci adduna bi ci adduna bi yëngal ñëpp yëngal ñëpp réew yi gënoon a am alal réew gënoon a am alal nekk ci crise nekk ci crise financière financière économique économique yu doy waar yu doy doy waar ñëpp jaaxle ñëpp jaaxle ñii di xaru ñii di xaru ñii di rey seen bopp ñii di rey seen bopp ngir ragal ñàkk ngir ragal ñàkk am na ñoo xam ne ay milliards la am na ñoo xam ne ay yu kawe la doonte yooyu ay jaamu yàlla la yu kawe waaye daf ne ala bi zikrillah waaye dafa ne ala bi zikrillahi tatma innul qulub la xol di amee itmi naan ca la xol ya di amee itmi naan ci lay amee dal ca lay amee dal doo tiit doo tiit doo ñànki doo ñànki doo fet feti dal am ànd ak sago. ànd ak sa sago. xam ne adduna bi. xam ne adduna bi. kenn nekku fi kudul yàlla. kenn nekku fi kudul yàlla. allaha qul. allaha qul. wazawil wujuda wa ma xawa. in kunta murtaadan. in kunta murtaadan. buluuqa kamaali. buluuqa kamaali. fal kullu. fal kullu. duunallahi. duunallahi. in xaqaqtahu. in xaqaqtahu. cadamun. cadamun. ala tafsili. ala tafsili. wal ijmaali. wal ijmaali. kenn nekku fi ku dul yàlla kenn nekku fi ku yàlla. bis dana mës a ñëw. nee bis dana mës a ñëw. yàlla yebal malaaka mi yàlla yebal malaayika mi. ak ay ndimbalam. ak ay ndimbalam. muy faat. muy faat. di faat di faat. ba kenn nekkatu fi. di ba kenn dootu fi des. yàlla taxaw di bàkku. yàlla taxaw di bàkku. ci ñetti kulloom yi. ci ñetti kulloom nafsin. kullu nafsin. zaa'iqatul mawt. kullu shay'in. kullu shay'in. haalikun. haalikun. illaa wajhahu. illaa wajhahu. kullu man alayha kullu man alayha faan faanin ci suuratu rahmaan ci suuratu kenn du fi des ku dul yàlla kenn du fi des ku dul yàlla ñëpp ni nemm ñëpp ni nemm ñëpp ñëpp sangoo suuf sangoo suuf yonent yeeg yonent yeeg awliyaa u awliyaa u borom xam-xam yeeg borom xam ñu baax ñeeg ñu baax ñeeg kàccoor yeeg kàccoor yeeg ñëpp nekk ci biir suuf nekk ci biir suuf ne nem ne nem kenn du yëngutu kenn du wax kenn du wax yàlla mi borom sañ-sañ yàlla mi borom sañ-sañ sañ a yëkkati loxoom ne kan mooy waaja ne ana kan mooy waaja subhaana zil mulki lazimi daaimi wal malakuutil xaaliqil awaalimi samaam sidaaji malik sunu maam سبحان ذي الملك العظيم دائم والملكوت الخالق العوالم tudd na ma sellug buur bi nga xam ne ne maam si ajmaay ne tudd naa ma sellug buur bi nga xam ni mooy borom nguur borom nguur keneen ku ñuy tudde buur ku dul moom keneen ku ñuy tudde buur ku moom dañu lay nax dañu lay nax de ba nga faloogul ba nga faloogul woon doo woon buur. même bi nga ko nekkee sax. même bi nga faloo ba nekk buur sax. turwee fi nekk. turwee fi nekk rek. boo follee koo. waaye taxulay buur de bis boo follee ko dootoo ko dégg mukk. dootoo dégg mukk nguur. waaye nguur gi sax dëgg dëgg. waaye nguur gi sax dëgg dëgg dëgg daal. subhaana zil mulki. subhaana zil mulki. al azimi. al azimi. addaimi addaimi. ci nguuram sax. ci nguuram sax. du fi jógee. du fi jógee. di maliki yawmi diin. di maliki yawmi diin. ak lu dul loola. ak lu dul loola. du kenn ku dul yàlla. du kenn ku dul yàlla sunu borom. tabaarakallahu fa tabaarakallahu kon mbokk yi kon mbokk yi yal na yàlla dundalal sunuy ruux mam mam maxtaar ne yàlla nanu yàlla boole dundalal sunuy ruux amin gis nga sunu yaram yi ne gis ngeen sunu yaram wi man nga koo sang man nga koo sang ba mu set ba mu set nga toccamiku nga toccamiku ba mu nes nesi ba mu nes nesi tuuroo sa parfum tuuroo say parfum ba mu neex ba mu neex nga solu nga solu waaye fekk na waaye fekk na ni nga sañ sañsee ci kaw ni nga sañ see ci kaw sa yaram di ko nes nesee sa yaram di ko nes nesee sa ruux sa ruux sa xol sa xol noonu la raflee ci yëg noonu la raflee ci yëg yàlla yàlla ci yàlla musal billah nit dana ci àgg ne nit dana àgg foofu de sañse ci kaw. nee sañse ci kaw. jekk ci kaw. rafet lool jekk ci kaw lool. kër gu rafet. kër gu rafet. daamaar ju rafet. oto bu rafet daamaar ju rafet. bassin bu rafet. basin bu rafet. ku la gis. soxna yu rafet waaye ku la gis. yaakaar ni. yaakaar ni. sa lépp a ngi dund. sa lépp ngi dund. fekk yow néew buy dox. fekk yow néew buy dox nga. waliyaasu billaah. nit nekk ci biir suuf. nee nit nekk ci biir suuf. ñu suul. ñu suul. mar maral ñaan dem maasale ba ba ñaan dem lekk lekk naan ataaya naan ataaya takk sëy takk sëy yee ca ca dëj ba tudd doom yi tudd doom ya fekk ka ñu suul fekk ka suul keroog ba ñu ne ruuxam taqalikoo na ak jëmmam keroog ba ñu ne ruuxam taqalikoo ak jëmmam yàlla nee na yàlla nee na ci laa koy sos ci laa koy sos ci beneen sosin bu bees ci beneen sosin bu bees boo xam ne ump na leen boo xam ne ump na leen waaye ku fa agsi waaye ku fa agsi sa kumpa jeex sa kumpa jeex billaay wallaay ku dee sa kumpa jeex. ka fa toll. nee ko fa toll. nit ñi bàyyi ko doxi seen soxla. nit ñi bàyyi ko doxi seen soxla. naan ndeysaan diw jóge na fi. naan an ah, ndeysaan diw de jóge na fi. fekk na moom. fekk na moom. juboo woon na ak boromam juboo woon na ak boromam ca ba muy nekkee fii ci àdduna. defaloon na fi yàlla loo xam ne. defaloon na fi yàlla loo xam ni. yàlla nga koy wan xeeti xéewal. yàlla nga koy wan xeeti xéewal. mu naan yaa layta qawmi. mu naan leen yéen ñay dund ca àddina yaa layta qawmi. ya'lamuuna. ya'lamuuna. bima ghafara li rabbi rabbi wajaalani wajaalani min almukramina fekk moom ruuxam fekk moom ruuxam bi muy tàqaliko bi muy tàqaliko moom ruux gu sell la woon ruux gu sell la woon ruuxun mumina ruuxun mumina aarifatun aarifatun bi rabbiha bi xamoon boromam ruux gu xamoon boromam bi ñu naan diw jóge na fi rek bi ñu naan diw jóge na fi rek malaaka yërmande yi malaaka yërmande yi ñoo ngi ko tawu ñoo ngi taawu ci ay ndabi leer ci ay ndabi leer ay mbajji wurus njegenaayu soie ay njegenaayu soie xeeti parfum yi a neex ay xeeti parfum yi ajjana ya gën a neex. ruuxam di dem ci kaw. ruuxam di dem ca kaw. xet gu neex gi muy dégager. xet gu neex gi muy dafay ubale goxi asamaan yi asamaan yi. malaaka yëpp kontaan malaaka yëpp kontaan. naan am na jullit bu dee de. naan ah am na jullit bu dee de. ruuxun. ruuxun muuminatun muuminatun. parfum bi dafay ubale goxi asamaan yi parfum ajjana bi dafay ubale ci goxi asamaan yi malaaka yi kontaan malaaka yi kontaan malaaka yi dañu bëgg xet gu neex malaaka yi dañoo bëgg xet gu neex moo tax sallallahu alayhi moo tax sallallahu alayhi daana wax ni daana wax ni lawla an ashuqa lawla an ashuqa ala ummati ala ummati la amartuhum la amartuhum bisiwaaki bisiwaaki inda kulli salaa inda kulli salaa su ma bañul woon a sonal sama xeet su ma bañul woon a sonal sama xeet wi balaa ñuy tabbi ci julli balaa ñuy tabbi ci leen jox ndigal danaa leen jox ndigal socc seeni bëñ socc seeni bëñ ba xet gu naqari gépp ba xet gu naqari gépp wu sallam ku bëggoon socc la sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Muxtaar ne ku bëggoon socc la. moo tax daana wax ne. ne moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni. ku ci lekkati laaj. ku ci lekkati laaj. wala soble su tooy. wala soble su tooy. li julli mbooloo di am solo. li julli mbooloo di am solo. nee na. nee na. bul ñëw ci jàkka ji. bul ñëw ci jàkka ji de. ndax xet gu naqari gii génn. ndax xet gu naqari gii génn. yaa ngi lor ñi nga bokkal di. yaa ngi lor ñi nga bokkal di julli. malaaka yii ñëw. malaaka yii ñëw. di teewe julli gi. di teewe julli gi nangu ñaan yi. di filmer di filmer di nangu ñaan yi di nangu ñaan yi yóbbu ca kaw di yóbbu ca kaw xet gu naqari gii bàyyi ko ci yow xetug laaj geeg soble gii bàyyi ko ci sa gémmiñ ngay ñaan daf leen di lor daf leen di lor ñoom malaayika yi moo tax mbokk yi nañ fonk set moo tax mbokk yi nañu leen di fonk set defar suñuy gémmiñ maam nee na ñuy defar suñuy gémmiñ wut parfum yu neex di ko tuuroo wut parfum yu di ko tuuroo sallallahu alayhi wa sallam dafa bëggoon parfum nee sallallahu alayhi wa sallam dafa bëggoon parfum ah, bu daan wax bu daan wax xet gi xet gi xet gi nga xam ni mooy gilli ci moom ci gémmiñ ga moo dàq misk ak moo dàq misk ak su masaana ñaq su masaana ñaq ñaq wi rek ñaq wi rek li muy dégagé li muy dégagé moo dàq misk ak ak anbar fa tabaarakallaahu fa bi ne kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax nee sallallahu alayhi wa sallam moomu nag yàlla nanu ko yàlla fayal nee kon mbokk yi zikkar am na solo de ñu daje fi tudd baatu laa ilaha illa allah ci mbooloo mu tol nii yàlla nangu na alhamdulillah nañu wax alhamdulilah. nanu leen wax alhamdulilah. te rafet njort. te rafet njort. yàlla nee na. yàlla nee na. ci xadis qudsi. ci xadisu qudsi. ana. ana. inda. inda. vanni. vanni. abdi. abdi. bii. fal yadunna. fal yadunna. bii. bii. macha. macha. sëriñ Cheikh El Hadj Malick si Maodo. nee Seydi Hadj Malick si Maodo Ibn Abdul Aziz Dabakh. ne. nee na. rafet njort. rafet njort ba dugg àjjana ba dugg jana moo gën moo gën ñaaw njort ñaaw njort ba dugg safara ba dugg safara yàlla duma ma yërëm yàlla du ma yërëm yàlla du ma yërëm yàlla du ma yërëm ëpp naa def ëpp naa def de yàlla nee na yàlla nee na sama jaam yi nga xam ne sama jaam yi nga xam ne dañoo dem ba ñëpp dañoo dema dema dem ba ñépp gedd leen nañ fi bàyyi ñëpp nañu fi bàyyi ñëpp taxaw ci sama bunt taxaw ci sama bunt man yàlla bu ñu may woo bu ñu may woo rek ma di leen wuyu قل يا عبادي الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا أسرفوا على أنفسهم على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله من رحمة الله إن الله إن الله يغفر يغفر الذنوب الذنوب جميعا جميعا إنه إنه هو هو الغفور الغفور الرحيم الرحيم kon mbokk yi nañ rafet kon mbokk yi maam Maxtaar nee nañu leen rafet njort. ñun li ñu am ci koom. ñun daal li ñu am ci koom. keneen amu ko. keneen amu ko de. yàlla baaxe la. yàlla baaxe la. xaral la sa xol. xaral la sa xol. def ci leeru laa ilaha def ca leeru laa ilaha illallah. sayyiduna muhammadun rasulillah sayyiduna muhammadun rasulillah. keneen koo ñee. sallallahu alayhi wa alihi keneen koo ñee. ngir koomu adduna. ngir koom koomu adduna bu mu am. wala pouvoir. wala pouvoir. wala yére yu rafet. wala yére yu rafet. wala kër gu rafet. wala kër gu rafet. yow mi nii yow mooma da ngaa réere la la yàlla defal rek. waaye koom mi gën ci koom mi waaye koom mi gën ci koom moo di yàlla boole la mooy yàlla boole la. min ahli laa ilaha min ahli laa ilaha illallah. laa ilaha العزيز الباقي قرقنا أحيوا قلوبكم بذكر الله في كل وقت يا عباد الله لا إله إلا الله maam maxtaar ne moo tax sallallahu alayhi wa daan wax ne baat bi gën ci baat boo xam ne wax naa ko baat bi gën ci baat boo xam ne wax naa ko man sallallahu salam ak sama mbokk yonent yi ma fi jiitu woon ak sama mbokki yonent yi nga xam ne ñoo ma fi jiitu woon ñoo ma fi jiitu ci jëmm ñoo ma fi jiitu woon ci jëmm nag waaye maa leen mag waaye nag man maa leen mag maanan maanawiyan buñ ma fi jiitoo buñ ma fi jiitoo it suuratan suuratan maa leen mag maa leen mag maanan maanan ski waaw mooy leer ga baat bi ci gën ne baat bi ci gën mooy baatu laa ilaha mooy baatu laa ilaha illa allah afdalu maa qultuhu afdalu maa qultuhu ana ana wannabiyuuna wannabiyuuna min qabli min qabli laa ilaha illa allah faalam faalam annahu annahu laa ilaha laa ilaha kon baatu nee kon baatu laa ilaha illa allah de yàlla nee am na ñoo xam ne bu ñu safara nee yàlla ne sunu borom ne am na ñoo xam ni bu ñu duggee safara musal ci safara yàlla na nu yàlla musal ci safara wax leen amin ak ñi ñu bàyyi koo ñëpp ak ñi ñu bàyyi koo ñëpp ak képp ku nar a ci ñun ak ñay ñëwi ëllëg te ñëwaguñu te nar bàyyi koo ci ñun képp ku nar a bàyyi koo ci ñun ba yàlla di lem suuf ba ba yàlla di lem suuf si yàlla nañu safara ump yàlla nañu safara ump wax leen amin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ñooña la leen fay dugal. la leen fay dugal. moo di. moo di. bu ñu leen masaana wax wax leen laa ilaha illa allah la leen di dugal safara mooy bu ñu leen a masaana wax ni leen wax leen laa ilaha illa allah yastakbiruun yastakbiruuna ñu gis seen bopp gis seen bopp rëy rëy ndax ak rëy tax ñuy wax laa ne ah lu tax ñuy wax laa ilaha illa allah innahum kaanu innahum kaanu ida qiila lahum ida qiila lahum laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah yastakbiruun yastakbiruuna ca suratu safaat ca suratu safaat ñoo xam ne ñii suñ leen masaana wax ni wax leen laa ilaha illa allah rek ñu rëy gis seen bopp ne lu tax ñuy wax laa ilaha illallah. ba ñu nekkee ci àdduna. ba nekkee ci àdduna lañ leen ko daan wax. ñun ñii bokkuñ ci. ñun ñii bokkuñu ca ñooña. léegi la ñu jógee ci xadra bi. léegi la ñu jógee ci xadratul jumaat. bàyyi kër yi. bàyyi kër yi. bàyyi njaboot yi. njaboot yi. tëj marché yi. tëj marché yi. tëj cantine yi tëj bitig yeeg cantine bàyyi projet yi. bàyyi projet yi. ñëw ñëw. ne groupe ne groupe ci suuf. gàppru toog ci suuf sujjóotaluñu toroxlu su sujjóotaluñu rukkoo aluñu woowuñu kenn kudul yàlla laa ilaha illa allah aras di yëngutu aras di yëngutu jaww ji di ko capté jaww ji di ko capté garab yi di ko capté garab yi di ko capté ba ci garab yi koy capté ba ci garab yi koy capté gàtt bi koy lekk meññent ya ñu nit ñi lekk ak ñax ma gàtt ya di lekk soow ma cay bàyyi ko soow may bàyyi ko ca gàtt ba. nit mën na koo naan nit mën na koo naan. yàlla jéggal ko yàlla jéggal ko. ci barke laa ilaha illallah parce que kon ñun sunu lépp xéewal la. waaw kon ñun jullit sunu lépp xéewal la. xanaa kay ñàkk xam. xanaa kay ñàkk xam. ak rek ak rek. néewal néewal cant. néewal cant. wa qalilun. wa qalilun. min ibadiya shakur min ibadiya shakur. yal na yàlla boole min ahli shukri. yal na nu yàlla boole min ahli shukri. walhamdi. walhamdi. wa thanaa'i. wa thanaa'i. lillahi taala lillahi taala. amiin yàlla na nu ko yàlla boole defal. moo tax xasida bi nga doon jàng léegi. nee moo tax xasida bii. ñu doon jàng léegi. góor gi ne. nee maam Abdoul Aziz Dabakh wax ci ne. zikrul ilaahi. zikrul ilaahi. tudd yàlla. tudd yàlla. te moo di baatu laa ilaaha illallah. te moo di baatu laa ilaaha illallah. la. aliment la. aliment la. lil quluubi. lil quluubi ñeel xol yi. mbokk yi. mbokk yi. ku la gën ku la gën xol. moo la nañu fexe bay yaatal xol yi nañu fexe ba yaatal sunu xol yi. xol bu xat xol bu xat. gaaw a mer gaaw a mer. gaaw a gedd gaaw a saaga gis sa bopp gis sa bopp. iñaan iñaan. iññeti iññeti. soxar tëkkuwaate liggéey nit ki liggéey nit ki. tibb tànku nit tibb tànku nit. maa nga kort ko dog ay xaatim dog ay xaatim dem ci armeel yi dem ca armeel ya di ko def ay téere doge ko reen di ko suul ay téere di ko def ci biir bàmmeel di ko def ci bopp néew bi tëdd ci bàmmeelam ngir xeex ngir xeex sa doomu aadama sa moroom ni yow lan la laa ilaha def ci sa xol waaye nee na loolu julit bu koy def lan la laa ilaha illallah def ci sa xol defu ca dara tey la jàkk yi gën a bari tey jii la jàkk yi gën a bari jumaa yi tey la gën a bari jumaa yi tey la gën bari gàmmu yi tey la gën a bari gàmmu yi tey la gën a bari màggal yi tey la gën a bari màggal yi tey la gën a bari malaanu wasifa yi tey la gën a bari malaanu tey la ñu gën a bari tey la jikko yi gën a ñaaw tey la jikko yi gën a ñaaw kon baat kon baat bi ñuy wax kon baat bi ñuy wax dëgg la dëgg la waaye ñun ñu koy wax waaye ñun ñu koy wax du dëgg ci ñun dëgguwuñu du dëgg ci ñun dañuy toog def xadara. dañuy toog léegi def xadara. ñëpp di tudd laa ilaha illallah ñëpp di tudd ñu pare. ñu pare. portable Hadji Mansour wadd. portable Hadji Mansour wadd. kuy wax laa ilaha illallah for ko. kuy wax laa ilaha illallah for ko. borom laa ilaha la di ko laaj. borom laa ilaha illallah di laaj te portable am. ka ko for. ka ko di wax laa ilaha illallah di wax laa ilaha illallah. génn génn. fay ko dindi pis ba fay ko. sànni sànni pis ba jël portable bi jël portable bi. jëfandikoo jëfandikoo. wala mu jaay wala mu jaay. kon ana laa ilaha kon la laa ilaha illallah wax. lan la def ci moom lan la def ci moom. Serigne Babacar ni. ilaha illallah bu tëralee laa ilaha illallah ne ko deq rendi bu ëllëgee bu ñu tasee ca kanamu laa ilaha illallah lan la ñuy layi laa ilaha illallah est-ce que te loolu rek la loolu rek ka fi am saagante saagante xuloonte boddente xuloonte tëkkoonte te rey nit. te rey nit. ajuwul ci jël paaka. ajuwul ci jël paaka de. wala nga jam ko fet. wala nga jam ko fet. am na kaddu gu ñaaw gooy yëkkati. am na kaddu gu ñaaw gooy yëkkati. adressé ko sa mbokkum jullit. jëmale ko ci sa mbokkum jullit. moo gën a ñaw fetal. moo gën a ñaw fetal. moo gën a bon xeej. moo gën a bon xeej. te loolu rek a xew. te loolu rek a xew léegi. kon. kon mbokk yi. mbokk yi nañu nafaraat. nañu leen nafaraat. baatu laa ilaaha baatub laa ilaaha illa allah. wa maa tadammanat. wa maa tadammanat. haadihi lkalimatu lmusharrafatu haadihi lkalimatu lmusharrafatu. min macaanin. min macaanin. wa muxtawayaatin. wa muxtawayaatin. wa madaamiina. wa madaamiina. wa mafaahiima. wa mafaahiima. yaa ayyuha alladina amanu aminu yaa ayyuha alladina amanu aminu ñi ñuy woo ñi woo ila al imaani ila na lu ko waral am na lu ko waral na am na lu ko waral de. yàlla du waxantu. ndax yàlla nag du waxantu. alquran amu ci benn xaraf. alquran amu ci benn boo xam ne dañ ko caa dolli. wala muy xaswul kalaam. wala muy xaswul kalaam. wala muy laxu. wala muy laxu. amul ci alxuraan amul ci alxuraan. baat bu nekk. baat bu ne. xaraf bu nekk. xaraf bu ne. tarkiib bu nekk. tarkiib bu ne. na ko yàlla tërale. na ko yàlla tërale. boo ko soppi woon boo ko soppi woon. maanaam day daal di yàqu. baatu laa ilaha kon baatu laa ilaha illallah rëy na de. amul penc mu mën a yéwén. amul benn penc mu mën a yéwén. ba li ñuy tuddee. ba tuddee. bànneex bànneex. ak tranquillité ak tranquillité. am fa am fa. ludul ludul. ci njubum laa ilaha illallah ci njubum laa ilaha illallah lañu ko jëlee. Seyyidina Muhammad Seyyidina Muhammadun Rasul. waaw waaw Maam Maxtaar ne gis nga Xaaji Mansour. baatu laa ilaha illallah bu dëggoon ci baatu laa ilaha bu fekkoon ni dafa dëggu ci nun jullit yi. kenn dootul tiit. kenn dootul tiit. kenn dootul jaaxle. kenn dootul jaaxle. sa portable. sa portable. su waddee ku ko for ku ko for. dana la ko jox dana la ko jox. doo dugg ci dàll. doo dugg ci ci jàkka. doo dugg ci jàkka. ragal ku jël say dàll. ragal jël say dàll. sa montor du wadd. sa montor du wadd. sa fitit sa fitit du dem. sa kër sa kër boo ko tëjul woon boo ko tëjul woon dëkk ak ñuy wax laa ilaha illallah dëkk ak ñuy wax laa ilaha illallah nga ñëw fii nga dem jàkka ja fàtte ne fàtte ni sa kër ca Tiwaawoon sa kër ca Tiwaawoon tëjoo ko tëjoo bunt ba sa armoire tëjoo ko tëjoo ko sa oora nga fa sa oora nga fa sa xaalisa nga fa sa nga fa sa xel dana dal sa xel dana dal ndax daf lay wóor ni ndax lay wóor ni kuy wax laa ilaha illallah kuy wax laa ilaha illallah amul sañ-sañu amul sañ-sañu wuutu la wuutu la sa ginnaaw sa ginnaaw di la lor fa tabaarakallahu kon liggéey bi ñu jógee kon liggéey bii nga xam ne mooy xadaratul jumaat ñu jóge ci léegi. ñu ngi leen ciy ndokkeel. ah sëriñ bi ne ñu ngi leen ciy ndokkeel. ñu ngi leen ciy ndokkeel. noo ngi leen ciy ndokkeel. incha allahu ñun ñëpp danañu texe. ne incha allahu ñun ñëpp danañu texe. bu neexee yàlla ci mbaaxu yàlla amin ak yërmandeem ak yërmandeem. ak barke laa ilaha illallah ak barke laa ilaha illallah. li Cheikh Al Hadj Malick di wax. li Cheikh Al Hadj Malick Maodo Dabakh di wax. nee nee na danañu tolloog yàlla foo xam ne danañu tolloog yàlla foo xam ne yàlla xam na ne joxuñu ko gëddaam yàlla xam na ni sax gaa joxuñu ko gëddaam wa maa qadarullaah wa maa qadarullaah xaqa qadrihi joxuñu ko xadram joxuñu yàlla xadram de. yàlla nee na man ponkal laa te yàlla nee man ponkal laa de. bés dana ma sa ñëw. bés dana ma sa ñëw. al ardu qabdatuhu. al ardu qabdatuhu. nee na suuf. nee na suuf. ni may ngëbe portable bi. ni mu ngëbe portable bi ci loxoom. yàlla nee na yàlla nee suuf noonu la koy ngëbe. wasamaawaatu. mu nee na ak asamaan. matt wi yaatu. nee ni muy rëy rëy ak yaatu noonu la koy téye. noonu la koy leme noonu la koy leme. bi yaminihi ngëb ko ci loxoom. ci loxo ndeyjooram ci loxo ndeyjooram. asamaan yi ëmb. ak li asamaan yi ëmb lépp. ak li suuf yi ëmb lépp. ñun lii la ñu teg bët di xool suuf sii nu nekk nii fi la ñu teg bët rek di xool. am na ci ay xeet yoo biddiw yoo xam ne. am na ay xeeti biddiw yoo xam ni. soo amoon télescope di ko ci xool. amoon télescope di ci xool biddiw yooya. wala ñi jàng astronomie. wala ñi nga xam ne dañuy jàng astronomie. dañuy dem ba gis ne. ji jàng almu nujum ne dañuy dem ba gis ni. biddiw yooyu biddiw yooyu. am na ci yoo xam ne am na ci yoo xam ni. seen digganteeg seen moroom. seen digganteeg seen moroom. ci li ñuy tudde euh, asanatu daw iyatu. ci li ñuy tudde daw iyatu. muy année lumière. muy année lumière. distance su diggante biddiw yooyu. distance su diggante biddiw yooyu. neuf milliards kilomètres. espace ba neuf milliards kilomètres. benn ak moroom benn bu ne ak moroom. la weer wii ngay gis. ne weer wii ngay gis. ci sunu euh, euh, ci ci li ñu mën a teg bët nii. ci li ñu mën a teg bët nii ci jamono àddina bi nu toll. benn weer la. benn weer la. mais am na ci bid am na ci euh, majmua chamsiya yoo xam ne. mais am na ci majmua chamsiya yoo xam ne. na ci boo xam ne. am na ci boo xam ne. juróom benn fukki weer. juróom fukki weer. ma nga fa ma nga fa. li ñu jot a gun a découvrir. li ñu jot a mat na téeméeri weer. na téeméeri weer. ak ak ñaar fukki weer te ñun benn weer rek lañ ciy gis muy weer yuy fekk ci asamaan mbokk yi nañu xam ni yàlla rek kay yàlla yàllaa ko yor yàllaa ko yor de yàlla mooy ngand yàllaay ngand mi mooy aziz yàllaay aziz mooy qaadir yàllaay qaadir mooy muqtadir mooy muqtadir yàlla mooy awal yàlla mooy awal yàlla mooy aaxir yalla mooy aaxir yalla mooy zaahir yàlla mooy zaahir yàlla mooy baatin yàlla mooy baatin wa huwa bi kulli shay'in alim foo mën a ne foo mën a ne yàllaa ngi la teg bët wa huwa maakum aynama kun boo tukkee boo tukkee soo weetee sooy nelaw soo wettili ko yàlla ne maa ngi lay gis maa ngi ne la jàkk wa naxnu aqrabu ilayhi min xablil warid yàlla nee na buum yi ne ci sa biiri xol li mu lay jege jege li mu lay jege jege jege man yàlla maa la ko gën a jege maa la gën a jege sa buumi xol kon fa tabaarakallaahu yàlla na nu yàlla boole saxal ci lii tariqa daal lii rek lay jëriñ tariqa génnul sharia ndey ji mooy sharia bu sharia taxawul tariqa du taxaw te bâtiment bii misaal mi mooy. misaal mi mooy. ba ñu tegee fondement. ba ñu tegee fondation bi. tabax tabax ko ba mu àgg. ba mu àgg raax ba mu jekk raax ba mu jekk. loolu mooy charia loolu mooy charia. peinture bi peinture bi. mooy tariqa mooy tariqa. su bâtiment bi amul woon. su bâtiment bi amul woon. tabaxuloo. tabaxuloo raaxuloo. raaxuloo peinture kese loo koy jëriñoo loo koy doy dara. il faut fondation am bâtiment taxaw. ñu raax ba mu jekk peinture ñëw rafetal ko. tabarakallah tabarakallah loolu la tariqa di jëriñ moo tax nañu fonk sunu sharia moo tax nañu fonk sunu sharia nañu fonk laab nañu fonk laab <clears throat> nañu fonk laab nañu fonk laab Mawlana Alhaji Abdoul Aziz ne Mawlana Cheikh Alhaji Abdoul Aziz radiyallahu taala wardaana bi amin waxtaan na ci ba tey waxtaan na ci ba tey fonk ferlu fonk ferlu ku ci duggati ci wanag boo tuuree ndox ba noppi na nga ferlu toog ab diir wóor la ni ba mu wóor la ni. li desoon ci sidit yi li ci sidit yi. toq toq yooyu toq toq yooyu. lépp génn na ba jeex. waaye dugg ci wanag. balaa am cinq secondes am cinq secondes. nga tuur ndox nga tuur fa ndox. ferlu fa siw siw jàpp ñëw julli ñëw julli. mu wóor la ni mu wóor boo delluwaatoon ci wanag wi boo delluwaatoon ci wanag wi. xool sa awra xool awra. gis ne da gis ni. saw maa ngi toq saw maa ngi toq. de sa gis gi ci biir jàkka ji rek. am loo yëg. ñu bàyyi ci xel. ne loolu nañ ci bàyyi xel. sénégalais nag. ne ab sénégalais nag. wax naa ko bu yàggul. ne loolu sëriñ bi ne loolu wax na ko rek bu yàggul. dañoo yàkkamti. ne sénégalais dañoo yàkkamti. garab gi ne garab gi. da koy jëmbat tey. da koy ji tey. arrosé ko tey. arrosé ko tey. mu màgg mu màgg tey. am ker am ker tey. am meññeent tey. nga lekk tey. bu dul loolu bu dul loolu. nga ni tooba saxal mbaama sulli. waaw yàkkamti foofu yàkkamtee loolu ne tooba saxal mbaama sulli yàkkamti la du doxal réew ne yow ñële fi jiitu dañu laa jëmbataloon ñun li ñuy consommé ñun li ñuy consommé jëmbatuñ ko woon jëmbatuñ ko fi woon de yow itam nag da ngay góor lu fexee jëmbatal génération bi nar a ñëw sa gannaaw te ñëwaguñu moo tax waykat ba nee na warif naaha lii ñu yore dañu ko donn minal abaa'i ci sunuy baay waaw bu ñu fiy jógee bu ñu fi dee jóge du ñu ko yóbbaale du ñu ndono li de. koy teg ci loxo xale yi. dañuy jël ndono li nu doon ne woon ca bàyyi ya teg ko ci loxol njaboot gi nu fiy bàyyi. ñu ko ak seen fukki loxo ñu téye ndono li ak seen fukki loxo. raaya bi bañ laal suuf. raaya bi bañ laal suuf. bu seen app jeexee. bu seen app jeexee. noonu lañ koy jox ñoom it noonu la ñuy taxañe ndono li jox ko ñeneen ña nga xam ne ñooy wiraasa ba. ilaa an yarisallahul arda. wa man alayha wa ma alayha ba ma àddinay tukki noonu rek ne kon nañu leen fonk laab sénégalais yi dañu xaw a yàkkamti tuuti koo ci joxoon wenn tur sax ne ko del sikar latif fekk mu am problème bu ko sikaree weer problème ba lijjantikuwul day dal delsi ci yow ni la waaw sëriñ bi man daal léegi ma joxoon daal du dara efficace wul seetal ma kunnage yu foor yi lambal ma ci yeneen yi te mbokk yi turu yàlla yi yépp a yam fa asmaullahi wa sifaatuhu kulluha mutasaawiya laa tafaadula bayna asmaillahi wa bayna sifaatihi wa kadalika sifaatullahi laa tanfaku an zaatihi walillahi al asmaau lxusna faduuhu biha qul uduu llaha aw uduu rahman ay yan maa taduu fa lahu l asmaau lxusna jarul sax turu yàlla wi nga yor di ko werde yàlla ne maa ngi nii di la dégg jarul yuuxu jarul ëyu maa ngi lay dégg sellalal rek te sax ci li góor gi waxoon ne. li góor gi waxoon ne. nit ki dana toll foo xam ne. nit ki dina toll foo xam ne. dootul soxla zikrul adat. dootul soxla zikrul adat. lim bu bari. lim bu bari. dootoo ko soxla dootoo ko soxla. waaye zikrul qalb. waaye zikrul qalb. wabil janaan. wabil janaan. sa xol mooy dem bay tudd yàlla mooy dem bay tudd yàlla. cheikh alxaaji abdul aziz radiyallahu anhu. ah maam cheikh war danaa bi amin. daana tëdd. ba nga defee ni mi ngi nelaw. ba nga defee ni mi ngi nelaw. waaye làmmiñ wi. waaye làmmiñ wi. mi ngi temtemi. mi ngi temtemi. baaraam yi. baaraam yi mi ngi naan nii. mi ngi naan nii te booba. te booba. x lay nekk ci guddi gi. x heure xaajaa jaatu guddi lay nekk ci heure ci nga defee ni góor gaa ngi nelaw waaye fekk xol bi waaye fekk xol bi mi ngi yëg yàlla mi ngi yëg yàlla mi ngi sabbal ngi sabbal yàlla da xool tuñ mi da ngay xool tuñ mi ni muy temtemee gis ni muy tem ngay xool baaraam yi ngay xool baaraam yi ma ngay sabbal yàlla istigfaar istigfaar di jéggulul xeet wi di jéggulul di jéggulul di njaboot di jéggulul di jéggulul jullit yépp fa tabaarakallah loolu yàlla na nanu ko yàlla séddee dafa am benn at nee dafa am benn at yaram wi jàpp maam Abdou yaram wi jàpp ko julli tabaski jot. nee julli tabaski jot. jotul julli si. jotul a julli si tabaski. waaye fa mu ne. waaye fa ne. ba ñu demee ba waxtu julli jot. ba ñu demee ba waxtu julli jot. mi ngi nelaw. mi ngi nelaw. ci ñun li ñu mën a gis. ci ñun li ñu mën gis. fi su di ko tudde nelaw. waaw fi suñu gis-gis toll ñu tudde ko nelaw. waaye bi waxtu iid jotee. waaye bi waxtu iid jotee. na mu ko daan defee ca Tiwaawan. na ko daan defee ca Tiwaawan. mu tëdd. fi mu tëdd. di nelaw. di nelaw. julli na. julli na. ñaari rakka yi. ñaari rakka yi. ànd ak takbiiraat yi. ànd ak takbiiraat yi. pare. pare. xutba xutba xutba maam Cheikh xutba maam Seydi Hadji Malick la bi mu demee ba jóg bi mu demee ba jóg laaj ndox laaj ndox jàpp jàpp ma ne ko ah si dañoo xaw a jaaxle ko ah, góor gi ñun de si dañoo xaw a jaaxle yow de yaa ngi doon julli yow de yaa ngi doon julli di di di kabar di kabar def xutba yi def xutba yi ah mu ne man yëguma ko de mu ne ah man de yëguma ko seetal li fa tabaarakallah mbokk yi yàlla na nanu yàlla may ak defaru ñu fonk laab ñu fonk laab fonk laab bu baax a baax ku ci duggati ci wanag bul yàkkamti de sénégalais yi dañu yàkkamti bu ñuy dugg ci jàkk dañuy xëccoo bu ñuy dugg ci kaar dañuy xëccoo pharmacie dañuy xëccoo bu nuy jënd mburu ca boulangerie ba dañuy xëccoo bu ñuy jël bus dañuy xëccoo am na ñoo xam ne dañu tàmm xëccoo am na ñoo ne dañu tàmm xëccoo ba bu ñu gisul ku ñu xëccool sax seen bopp la ñuy xëccool faf <laughs> wax dëgg de wax dëgg de ndax tàmm rek ndax tàmm rek tabaarakallaahu tabaarakallaahu loolu nag boo ko tàmmee. loolu nag boo ko tàmmee. pour nga am dara ci yàlla. pour nga am dara ci yàlla. daf lay jafe ah daf lay jafe de. mag ñi dañu daan toog a toog a toog. mag ñi dañu daan toog a a toog. maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu. maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu war a nabi amin. daana naafila kaamil bi. daana naafila kaamil bi. ñaari rakk ñaari rakka rakk bu njëkk bi rakka bu njëkk bi xaaj bu njëkk bi xaaj bu njëkk bi bu ñaareel bi rakka bu ñaareel bi xaaj bu mujj bi xaaj bu mujj bi fajar jot fajar jot mu dem jàkka ji julli du ko sax déranger du ko sax déranger kooku de du nelaw sunu classe gi waaye sunu classe gi ndakaaru am na ñoo xam ne bu ndakaaru am na ñoo xam ni bu koor jotee bu koor jotee ba ñuy naafi la ba ñuy naafi la dañu naan nañ seeti juma juma car dañu naan nañ seet juma rapide jumaa ji gën a gaaw ci naafila ñoom nañ ko seet rapide taf taf jàll taf taf rek naafila taf taf jàll nga xam ne yow li ngay def nga xam ne yow li ngay def ci am benn yëg-yëg yàkkamtee tax doo ci am benn yëg-yëg te jaamu yàlla pour mu jariñ la te jaamu yàlla nag pour mu jariñ la il faut nga teew te teewlu ko bokk na ci faratay julli bokk na ci julli li ñuy tudde li ñuy tudde al i'tidaalu al i'tidaalu wa tuma'ninatu wa tuma'ninatu alxushuu alxushuu toroxlu ci julli toroxlu ci julli teew lu jëmmi yàlla teew lu jëmmi yàlla di nga ne allahu akbar di nga muy kabbaru armal muy nga ne yàlla nga ne yàlla bàyyi naa fi lépp bàyyi naa fi lépp anta akbaru min kulli shay anta akbaru min kulli amul dara lu ma lay dendale. yow yàlla yaa gën a màgg lépp amul dara lu ma lay dendale. doo ko firee sax yaa gën a màgg. doo doo ko firee sax yaa gën a màgg lépp. ndax superlatif amu fi. ndax superlatif amu fi. afaalu tafdil amu fi. afaalu tafdil amu yow yàlla yaa màgg. yow yàlla yaa màgg. keneen ku dul yow màggul. keneen ku dul yow màggul. waaye allahu akbar. waaye allahu akbar. kenn du ko firee yow yàlla yaa gën a màgg. yaa gën a màgg. ndax kon dafay mel ni dafa am keneen ku màgg. ndax kon dafay mel ni dafa am keneen ku màgg ci wetu yàlla. te kenn màggul feetu yàlla. allahu akbar. الأكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه تبارك الله nga teewlu ko concentré wu kabar taxaw ni teg concentré wu fatiha jàng fatiha qiraata qiraata wa ta'ammulin wa wa tama'unin wa afalaa yatadabbaruuna alquran afalaa yatadabbaruuna alquran bi nga naan bismillahi arrahmani rahim bi nga naan bismillahi arrahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim arrahmani rahim yàlla daraam tuutiwul yàlla daraam tuutiwul alquran bu kenn yaakaar alquran bu kenn yaakaar ni dafa am wax waxaat gis nga bismillahi rahmaani rahim. nee bismillahi rahmaani rahim. arrahmaani rahim bi sës ci Allah. arrahmaani rahim bi sës ci Allah. ak alhamdulilahi rabbil alamin. ak alhamdulilahi rabbil alamin. arrahmaani rahim bi sës ci baatu arrab. ar arrahmaani rahim bi sës ci baatu arrab. bokkuñu lu ñuy firi. bokkuñu lu ñuy firi de. bokkuñu lu ñuy firi. bokkuñu lu ñuy firi. du takraar. du takraar nga settantal ko nga setantal ko maliki yow mi diin maliki mi diin iyaaka nacbudu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain wa iyaaka nastain ihdina siraat al ihdina siraat al il faut nga am loo ci sa yaram il faut boo ko jàngee ak teg ak tey il faut nga am loo yëg sa yaram law anzalna hadha alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian mutasaddian min xashyatillah nga teg saar nga teg saar jéem a teewlu jéem a teewlu xeex ak seytaane xeex ak seytaane dàq yëpp dàq yëpp ci xalaat teewlu màggug yàlla teewlu nag màggug sunu borom boo jullee ba àggal boo jullee ba àggal da nga am loo yëg ci as ñaq da nga am loo yëg ci as ñaq as diisaay. ak as diisaay. foofu ngay yëgee ni julli. foofu ngay yëgee ni julli nga. waaye taf taf jàll. waaye julli taf taf jàll. di julli. di julli. jàkkaarloog làmb ji. jàkkaarloog làmb ji. jàkkaarloog football bi. jàkkaarloog bi. lu nekk nga bëgg koo seetaan. lu ne nga bëgg koo seetaan. lu nekk nga dugg. lu ne nga bëgg caa dugg. julli woo benn waay dafa ñëw fekk sang ne benn waaye dafa ñëw fekk sang ba sallallahu alayhi wa sallam mu taftafee julli mu taftafee julli ga pare pare ñëw nuyu sang ñëw nuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sang bi ne ko sang bi ne ko fa salli fa salli fa innaka fa innaka lam tusalli lam tusalli delluwaatal nga julli yow julli woo mu demaat julli mu demaat julliwaat. ñëw ñëw yonent bi ne ko delluwaatal nga julliwaat yow julliwoo. ba muy ñetti ba muy ñetti yoon. mu ne ko nag sang bi lii laa mën ne ko sang bi lii laa mën nag. wan ma boog nu ñuy jullee ma boog nu ñuy jullee. sang bi jàngal ko sang bi jàngal ko nanuy jullee. comme nii ñu ko waxee. jàngee Fatiha boo jàngee Fatiha. Fatiha farata la Fatiha farata la. taxawaay bi ngay taxaw di jàng Fatiha farata la. kabbaru armal farata la kabbaru armal farata la. yéene bi ngay duggee ci julli gi yéene bi ngay duggee ci julli gi. farata la farata la. boo toppee ci ginnaaw imaam boo toppee ci ginnaaw imaam. yéene bi ngay yéene roy ci sa ilimaan bi ngay yéene roy ci sa ilimaan. farata la soo ko deful soo ko deful. ilimaan du la yóbbaale ilimaan du la yóbbaale. locomotive locomotive. lonku woo ci lonk woo ci. foo jëm. ah bopp saxaar mooy lonk wago bu la bu lonkul doo dem bu la bopp saxaar lonkul yow wago foo jëm doo dem imaam moom kenn waxu ko ne yéene na ilimaan la te imaam moom kenn waxu ko ne yéene na ilimaan la xanaa ci julli jumaa xanaa ci julli jumaa rek ak julli boole ak julli boole waaye bu dee ci julli yi rek. waaye bu dee ci julli yi. kenn santul ilimaan kenn santul ilimaan. mu yéene ne moom ilimaan la mu ni moom ilimaan la. waaye yow mi topp ci ginnaawam yow mi topp ci ginnaawam. fi nga naan Allahu akbar fi nga naan Allahu akbar. diggante e. diggante e. bi ci Allahu. bi ci Allahu. ak ru. ak ru bi ci akbaru bi ci akbaru foofu nga yéenee ci diggante ñaari araf yooyu ci ngay yéenee ni maa ngi roy ci ni maa ngi roy ci ilimaan yéenee lool rek yéenee lool rek mu yóbbaale la mu yóbbaale la fa tabaarakallah tabaarakallah ñu bàyyi ci xel bu baax ñu bàyyi ci xel nag bu baax boo demee ba rukkoo nga téye sa ñaari bëti oom sa ginnaaw gi sa ginnaaw gi na talli na tàlli maase maase ba buñ la doxe woon ginnaaw ba buñ la doxe woon ginnaaw sotti ci ndox sotti ci ndox lii day dem ci kanam non non du dem fii lii du dem ci kanam du dem fii lii du dem ci ginnaaw day taa rek ci digg ndax ginnaaw gu maase ndax ginnaaw gu maase ca rukkoo ba nga sabbaal yàlla nga sabbaal yàlla subhaana subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi ñetti yoon ñetti yoon bañ koo gaaw bañ koo gaawtoo boo demee ba yëkkati. boo farata la. kooku farata la. ruku farata la. ruku farata la. war rafu min ruku. war rafu min ruku. yëkkati bi ngay yëkkatiku bi ngay yëkkatiku ci ruku bi. kooku itam farata la. kooku itam farata la. boo demee ba ne dégg. boo demee ba ne dégg nag. sa yax yëpp. sa yax yëpp. delluwaat fa mu jóge woon. delluwaat fa mu jóge woon ca taxawaay ba. nga bu ñu ne bu imaam ne sami allahu liman hamida bu imaam ne sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd nga wax rabbana wa lakal hamd hamdan hamdan kathiran kathiran tayyiban tayyiban mubarakan mubarakan fiihi nga soog a judd yow. boo ko deful rek boo ko deful rek sa yàq julli. moo tax bu ilimaan allahu akbar. yàq sa julli ne bu ilimaan ne allahu akbar. kabbaru armal kabbaru am na ñu yàkkamti. ne am na ñoo xam ne dañoo yàkkamti na balaa ilimaana naan allahu akbar kabar nañu ñoom kabar nañu bi yàgg wala ñu ànd ak moom wala ñu ànd moom benn loola boo ko defee amoo julli kabaru armal kabaru armal doo ko defandoog sa ilimaan doo ko defandoog sa ilimaan doo ko ko a def doo ko ko njëkk def sujjóot maanaam euh, asalaamaaleykum. bi asalaamaaleykum bi tax nga génn ci julli gi. soo ko defandoog sa ilimaan soo ko defandoog sa ilimaan. sa julli yàqu sa julli yàqu na. soo ko njëkkee def soo ko ko njëkkee def. sa julli yàqu na da ngay bàyyi ba mu sëlmal. da bàyyi ba mu sëlmal. boo toppee ci imaam buy wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ci ndeyjoor ak càmmoñ. boo toppee ci imaam buy wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ci ndeyjoor ak ci càmmoñ. nga njëkk ko koo wax nga njëkk ko wax. sa julli dafay yàqu sa julli dafay yàqu. bu dee koo xam ne fii rek lay sëlmal bu dee koo xam ne ci ndeyjoor rek asalaamualeykum rek. ca lay yem bàyyil ba mu def ba noppi. bàyyil ba mu sëlmal ba def ba noppi. nga soog a sëlmal bu dee kuy sëlmal ci ñaari côté yi. bàyyil ba mu sëlmal ci ñaari boor yépp nga doog a sëlmal. tabaarakallah tabaarakallah. ñu fonk laab nañ leen fonk laab. ñu fonk laab. ne sëriñ bi ne ñu fonk laab. bàyyi ko xel bu baax bàyyi ko xel bu baax. sang bu tedd bi daana wax ne. ne bu tedd ba sallallahu alayhi wa daana wax naan. tanazzahu tanazzahu. na ngeen di ferlu na ngeen di ferlu. minal bawli minal bawli. ci tuur ndox ci tuur ndox. ak saw fa inna amata adaabil qabri bari na ku ñuy mbugal ci biir ne bari na ku ñuy mbugal ci biir bàmmeel te la ko waral te la waral mbugal ma ba mu nekkee àddina su ma saana saw daawul ferlu kon nañ leen bàyyi xel ci ferlu boroom xam yi dem nañu ne boroom xam-xam yi dem nañu ba ni sa loxo càmmoñ bii dañuy bañ nga jëfandikoo sa loxo ndeyjoor jëlal sa loxo càmmoñ te balaa ngay jël sa loxo càmmoñ càmmoñ di ko def ci sa awra na nga ca jiital ndox ba noppi ba ndox mi dugg ci xar-xari bën rëddi loxo ya ba tooy su ko defee nga door a téye su ko defee nga door a sa awra. la cay taq ci sobe la cay taq ca sobe taq ca. su ko defee ndox mi da koy wàccee boo paree rek raxas mu dem. tabaarakallaahu ñu fonk laab. ñu fonk ci yére yi ci yére yi. bu sa yére amee sobe. bu sa yére amee sobe. boo ko joxee soxna si. boo ko joxee soxna si. nee ko na sobe. nee ko yére bii am na sobe. mu xayu ko mu xayu ko. te bu koy xayu. te bu koy xayu. mu boole ñaari yére yi bu mu boole ñaari yére yi. na xayu benn. na xayu benn. tuur ndox ma tuur ndox ma. teg fële. jël beneen yére door rootaat beneen ndox xayuwaat ko tuur ndox ma teg fee jël beneen rootaat ndox xayu teg fële dooga nag jël saabu su fóotee ba pare bàcc noonu la ñuy xayoo waaye jël sa yére waaye jël jox jox nettoyage. ñu nettoyé la. nga yóbbu ñu nettoyage la. te kenn xayuwu du ko xayu. tabarakallah gome ko bam ni jàdd nga sol ko julli. te fekk na rafet na ci kaw te fekk na rafet na ci kaw ak gom nga. waaye julliwul. yàlla dafa fonk laab. yàlla dafa fonk laab. inna allaha. inna allaha. yuhibbu tawaabiina yuhibbu tawaabiina. wa yuhibbul mutatahhiriina. wa thiyaabaka. wa thiyaabaka. fa tahhir fa laab dafa am solo yaa ayyuha alladina amanu ida qumtum ila salaati faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wa amsaxu ruusikum wa arjulakum ila alkacbayn wa in kuntum junuban fatahharu ku ci am sobe. nee ku ci am sobe. wala nga ànd ak sa soxna. wala nga ànd ak sa soxna. na nga sangu. na sangu. ngay julli sangu janaaba bala ngay julli. amul benn ñaan bu nit mën a. ñaan amul benn ñaan bu nit ki mën a ñaan. du bu yonent bi wax. du bu bi wax. beneen wali yu waxu ko du bu beneen wali wax. ànd ak sa soxna. ànd ak sa soxna. ñaan ak ñaan. ñaan ak ñaan. ne janaba wàcc na. ni teqali ko nga ak sobe sax dem julli ji dem julli ji. da ngay caaxaan loolu amul de. ku ko def it da ngay caaxaan kuñ ko def loo dañ lay caaxaan loo. sangu rek sangu rek. wa in kuntum junuban. nee wa in kuntum junuban. fatahharu fatahharu. amr la fi'lu amr la sax. la. impératif la. impératif impératif la. tabarakallah amul père wala fi tabarakallah. macha allah ñu fonk julli. ñu fonk julli. laab. nee ñu fonk laab. fonk itam sunuy diggante. nee nanu leen fonk sunuy diggante. yërëmante. nanu leen yërëmante. suturaalante nanu leen suturaalante. bàyyente xel nanu leen bàyyente xel. sallallahu alayhi wa sallam nee na. nee sang ba nee na. ku gis sa mbokkum julit sa mbokkum julit mu def safaan mu nekk ci ab safaan ko mu di ko def nga suturaal ko bañ a bañ a xaw wi suturaam bu yowmal qiyaama bu yowmal qiyaamee fa caaf di xëmee fa caaf di yàlla dana la suturaale yàlla dana la fa suturaale kay wala ko ñëpp soxlaa de ñu bàyyi ci xel yàlla nañu ko yàlla boole defal amiin bu sunu sariya pare nag ñu fonk nag sunu lawraat yi laazim suba ngoon wasifa wi wasifa wi maam Cheikh Al Hadj Malick ne Seydina Cheikh dafa wax ni benn nga wasifa suba benn nga wasifa suba ngoon wala nga wasifa ngoon wa waqtuha almasa wa waqtu wa waqtuha almasa wa waqtuha almasa aw alsabaaxu aw alsabaaxu jamcuhuma jamcuhuma fa xasanun fa xasanun rabaaxu rabaaxu ca faakiha ca faakiha loolu la maam wax loolu la maam wax waxtu wasifa waxtu wasifa benn muy suba benn muy suba ngoon ngoon wala suba wala suba waaye jamcuhuma waaye jamcuhuma wasifa subaak ngoon wasifa subaak ngoon fa xasanun fa xasanun lu rafet la lu rafet la lu baax la lu baax la rabaaxu rabaaxu tono la tono la. bénéfice la bénéfice la. maam ne. maam ne. xasan gu bàyyi ko ci sidna cheikh xasan gu bàyyi ko ci sidna cheikh. Malik daf cay ngoy. Malik daf cay ngoy. ak fukki yoxoom ak fukki yoxoom. mais du ko bàyyi mu dem waaye du ko bàyyi mu dem de. loolu moo tax maam di wasifa suba loolu moo tax maam Sidaaji Malik sant nu nuy wasifa suba ak ngoon. kon nañu leen di wasifa suba ak ngoon. tabaarakallaahu tabaarakallaahu xadara bii ñu jógee xadara bii ñu jógee fonk ko nañ ko fonk te bu ñu fi jógee te bu ñu fi jógee laa illa allah li muy wund li muy wund nañu ko dund yërëmante suturaalante bàyyente xel yaatalante bañ a xatal Sëriñ Maodo si Sëriñ Maodo si bu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz nee na yàlla buur bu yaatu la buur bu yaatu nag jaam bu yaatu la xajoo jaam bu yaatu la xajoo. bu yàlla bëggee yaatal bu yàlla bëggee yaatal. yow nga bëgg a xatal yow nga bëgg a xatal. da ngay sonn rek da sonn rek da ngay sonn te du tax mu xat. te inna allaha waasiun te inna allaha waasiun loolu moo doon kàddu yi nag moo doonoon kàddu yi nga xam ni. sëriñ bi mi ngi leen di sant. maam Maxtaar ne sëriñ Maodo ne sëriñ Sidi ne ñu ngi leen di sant. ba ci xalifa bi ba ci xalifa bi. ak sëriñ Babacar ak sëriñ Mbaye Sy Mansour. ak Serigne Abdoul Aziz lépp lu maam Cheikh El Hadj Malick ak lépp lu maam Cheikh Seydi Hadj Malick jaboote ñu ngi leen di sant ndax pàkk bii nu ko defe tey kat kenn ku ne mënoon ngaa defe xadratul jumaat fa nga fa nga bàyyi ko waaye dañu leen a woo ci yàlla ngeen wuy si di barkeelu si ci barab yaa ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul ida daakum lima yuxyikum te wóor nañu ni tey jii ku jóge fii sa xol dana dundaat sa ruux dana dundaat sa yaakaar dana gën a dëgër sa pas-pas dana gën a fasuwaat wa tabaarakallah kon ngeen ñëw wuy si ci barab bii nga xam ni barab bii nga xam ni maam Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala anhu nee na ba mu demee Makka ñaan fa yàlla may ko barab boo xam ni jullit yi dañu fay daje di xamante ñun ñii fi tase tey. ku ci xam ku ci xamanteeg nit. ku ci xamanteeg nit. bu ëllëgee fooy dox ba taseeg moom bu ëllëgee fooy dox ba taseeg moom. boo naroon a tarxiis naroon a tarxiis. mu jàpp ci sa mbagg mu jàpp ci sa mbagg. ne la diw ne la diw. xàmmee nga ma xàmmee nga ma. ñoo bokkoon xadara ca ñoo bokkoon xadara ca jagsaaw. li taarafu ngi noonu li taarafu ñëw na waaw xabaay la. li taarafu ñëw na. tabaarakallah tabaarakallah. mu ne itam mu ne itam. mu fi tuur ñaqam. maam si Hadji Malick bokkoon na ca la mu ñaan ca Makka barab bu mel ni jagsaaw mu di fi tuur ñaqam di fi daan dooleem ci benn xasida moo tax ci benn xasida góor gi mi ngi naan góor gi mi ngi naan jeg saa wuhu jeg saa wuhu ussisa ussisa li tarbiyati li tarbiyati wal ilmi wal ilmi wal irshaadi wal irshaadi wa tarqiyati atbaahu atbaahu turran turran li wajhi llahi laa li riyaa wala li xubbil jaahi nee na maam Cheikh Alxaj Malik jeg saaw daf ko sosoon daf ko fonde pour yar jàngale jubbanti tarbiya yéege nit ñi ba ñu yëg ba ñu yëg seen borom ne dëkk boobu la ñu nekk tey fii kon jagsaaw ubbi na xolam ubbi na xolam ubbi na dënnam tatagal leen tatagal leen ni leen ahlan bikum ahlan marhaban ku ci nekk ku ci ne jagsaaw nee na la jagsaaw nee dalal ak jàmm doxal ndànk doxal ndànk daagul ndànk daagul summil sax sa daal summil sax sa bu neexee yàlla dégg du la jam bu neexee yàlla dégg du la jam pont du la jam pont du la jam xott butéel du xotti sa tànk jàmm yiw yiw ba keroog ñuy dellu ca kër ya góor gi daana wax ne jag saaw dëkk bu ñu sangee la boo fi duggee yam ci say farata sax boo yëgee ak boo yëgul sa ruux ma nga yéeg jëm ci sa borom yàlla nanu ko yàlla boole defal fa tabaarakallah daana wax ni yow yàlla maa ngi lay ñaan ndoxu jag saaw jàngoro bu fi nit mën indi su ko naanee ni zam-zam di saafara yaram maa ngi ñaan maa ngi ñaan nga jël ndoxu jagsaaw yéege ko ci barke yéege ko ca barke zam-zam ku fi am jàngoro indaale ku fi am jàngoro indaale ko boo naanee ci ndox mi boo naanee ci ndox mi yal na yàlla fóotal la soxol fóotal la sa jàngoro góor gi yamu ci de nee na ku noyyi eeru jagsaaw jàqare boo ma sa am yàlla na la ko yàlla wuññil kon sëriñ bi ne mi ngi leen di dalal di leen sant di leen gërëm ne ndax jullit lii rek la mënal mbokkam sa mbokk woote nga bàyyi lépp faas def ay paas bàyyi sa njaboot ñëw ngir yàlla yàlla na leen yàlla fay Chérif Haydara Maam Moxtaar ne ñu ngi lay ziar bu baax a baax ci turu sëriñ bi di la sant di la gërëm yéen yéen a moom lépp. yéen nag yéen a moom lépp. ndax liñ doon wax ci seen maam. ndax liñ doon wax ci seen maam. dafay wàcc ba ci njabootam dafay wàcc ba ci njabootam. moo tax góor gi daana wax. moo tax góor gi daana wax ne. yéen samay sang. yéen samay sang. di njabootu yonent bi di njabootu yonent bi. yaa saadati. yaa saadati. yéen samay yéen samay sang. di sëtu yonent bi sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xubbukum xubbukum. sopp gi ma leen sopp. sopp gi ma leen sopp man Abdul Aziz. maxruusun maxruusun. lu ñu jëmbat la lu ñu jëmbat la. ci sama xol ci sama xol. góor gi ne góor gi ne naarul mahabbati naarul mahabbati fi l axshaai muxriqatun fi l axshaai muxriqatun ka anna nii ka anna nii fii jaxiimi shawqi fii jaxiimi shawqi maxbuusu maxbuusu nee na cofeel gi ma am ci njabootu yonent bi maam Abdou Aziz Dabakh ne cofeel gi mu am ci njabootu yonent bi dafa far soppaliku safara woo xam ne dafay lakk sama dafa far sax nag soppaliku safara woo xam ne day lakk sax sama xol ba deseetuma xol ba deseetuma xol dafa mel ni dafa mel ni dañ ma jël dañ ma jël tëj ma ci biir safaraw cofeel waxu nitu yàlla la nag wax bu xóot la neexul a dégg nag te nag ca seen maam la tàmbalee inna xubba nabi xaalata laxmi góor gi ne sopp yonent bi jaxasoo naag sama yàpp samay sidit sama yuq sama yax amul fenn fooy làmb te espace vide amul ci man. espace vide amul ci man. foo lamb rek foo lamb rek. sopp yonent fekk nga fa sopp yonent bi. sax na fa sax na fa duy na ko ba mu fees duy na ko ba mu fees ak cofeel. sallallahu alayhi wa sallam. moo tax bi muy génn àdduna. moo tax Serigne Abdoul Aziz Dabakh bi muy génn àdduna. Serigne Maodo Serigne Maodo. gént gis ko. nee dafa gént gis ko. ginnaaw génn àddunaam. ginnaaw génnuk àddinaam. nee mu ne ko xaaj Malick maa ngi sant yàlla de. bi ma nekkee principal. bi ma nekkee principal. ba sama ruux war a taqalikook sama yaram ba sama ruux war a taqalikook sama yaram. rasulullahi moo ñëw. rasulullahi moo ñëw. allah sallallahu alayhi wa sallam. sama bopp jël sama bopp. teg ko ca luppam yu tedd ya teg ko ca luppam yu tedd ya. di ma sax di ma sax. ay xeeti sabbal ay xeeti sabbal. ma di ko répété ma di ko répété. ànd ak moom ànd ak moom. ba sama ruux taqali sama ruux taqali ko man. ma ànd ak moom dem ci kaw ma ànd ak moom dem ci kaw. allah yal nañu ko yàlla boole defal. nee ñu ngi nuyu ilimaan bu baax. alxaaji Mouhamadul Mokhtar si. bu suñu baay amat si. moom itam nekk fi taxawu jàkka ji julli juróom doonte kenn la sax dana ñëw joxe waxtu wi yal na yàlla yàggal loolu ci loxoom ni ko tege woon ci loxo ay magam di yeesal njaal ak ziyaar ak feddli kóllëre ci góor gu baax gi nga xam ni moom la góor gi bàyyi woon fii depuis 1958 di góor gi goraatee fii ba bu yàggul lay door nelaw muy bàyyi alaaji si mi ngi fii ñu denc ci kanamu jàkka ji yal na yàlla taas na ci barkeem yal na yàlla gërëm jëfam yal na xippee ca àjjana ya gën a ca wetu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam di nuyu nag mag ñi fi nekk ñépp te di leen ziyaara fu nekk nit bàyyi koo na fa Tamba Kolda Mauritanie Ndakaaru Kaolack Banjul fu ne nit bàyyi koo na fa fu ne rek nit bàyyi koo na ngir yàlla ak cofeel te nit ki nag lu mu munta am ci cofeel nit ki nag lu mu munta am ci cofeel leneen du ko ko may de yàlla na nu sopp yàlla yàlla na ñu sopp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nu soppante ci sunu biir yàlla na nu wóolante te yàlla tax fa tabaarakallah di nuyu nag bàyyi Cheikh si mi ngi ci biti ak Pape Serigne Camara ay mag lañu jataay bu yàgg bi mënuñu ko waaye nag ñoom papa Cheikh Ahmad Tidiane si ak maam Serigne Camara ñoo daan bokk góor gi Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Dabakh jataay bi fii di nuyu soxna yu baax yii ne ci biti di leen sant te di leen gërëm. lii yëpp yaakaar la rek yaakaar daal ji nu yaakaar ba ñëw fii yàlla bu yàlla tas sunu yaakaar jagsaaw gii de ku ci dugal sa loxo wala nga wax ci dara yàlla dana wax ci yow dara waaw ku ci def dara yàlla dina def ci yow dara ku ci wax dara ci lu baax yàlla dina wax ci yow dara te góor gee ko waxal boppam ne boo demee ci diiwaanu góor gi xasaa it yi mu def bàkk ci jagsaaw kañ ci jagsaaw ku fi def dara wala nga jaamu fi yàlla inchaa allah inchaa allah inchaa allah sa lépp dina baax inchaa allah yàlla dina la ko nangul ne loolu rek moo doon noon kàddu yi jigéeni sant waa rajo yi rajo bi ndax ñoom ñi ngi ñëw waa TFM rajo mbooleem rajo yi fi ñëw yëpp télévision yi fi ñëw yëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm jàllale. di leen ñaanal yàlla ndax yéen a ngi filmer di jàllale. di jotal di jotal ndax am na ay soppe yu nekk ci bitim réew. bëgg nañoo ñëw. waaye mënuñoo ñëw. waaye nag teew nañu. teew nañu ndax seen xol ak seen pas-pas. teew nañu de. fa tabaarakallaahu kon yéen ñu di presse bi ñëw di jàllale média yi te muy diine ci tele yi. sëriñ bi ne mi ngi leen di sant bu baax Cheikh Al Hadj Malick Maodo mooy wax ni yàlla rek mën a wéet léppam di dox ku dul yàlla rek soxla nga ku la jàppale parce que te nag nit ku baax day sant borom bi sëriñ Babacar si radiyallahu taala an war dana bi amin daana wax ni bokk na ci ak mbaadoo la dëgg guux say lex rek luñ la defal nga guuxi lex yoori lex ni daa koo yayoo defe ni yaa nit ñi dañ laa war a defal te yow waroo defal kenn sant sax waru la nee ku ko def waaye delloo woo yàlla njukkal waay te inshaa allahu loolu day ñun du ñu dal de sheybatul hamdi cheikh alxaaj abdul aziz borom bejaaw bu rafet booba nit daana ko jox benn paquetu suukar un kilo wala benn ganaar mu ni demal nga indil ma këyit leetar boo xam ne dana mat aw xët lépp page yu lëmm mooy aw xët lépp di cant ak ngërëm ak ñaanal la te un kilo sucre rek nga ko jox xol baa rëy ci wàllu yàlla xolama rëy yëgoon yàlla xol baa rëy xol bi moo rëy moo lu mbir tuuti tuuti nga defal koko rëy na ci moom te yëg na ci yàlla fii ay mbalka la fi tabaxoon dañu daan duy mbalka yi ba mu fees ak ndox jël dugub suy ci wetu mbalka yi picc yi ñëw bu ñu dikkee naan ci ndox mi lekk ci dugub ji ba suur naan ci ndox mi teg daal di naaw doxi seen soxla te picc yooyu kat mission la ñuy dox picc ngi lay romb yi sab yaa xamul la muy wax waaye ma ngay sàbbaal yàlla ma ngi koy bàkk ma ngi koy kañ wa im min cheyin illaa yusabixu bi hamdihi nee na sabal mooy sàbbaalu yàlla sabbaalu yàlla sabbaalu yàlla. waaw sab ba noppi baalu yàlla baalu yàlla. sabbaalu yàlla léegi nag li ñuy tëjee. nee fa tabaarakallah sana xaarixiin léegi nag li ñuy tëjee wax ji. dafa am mbokk moo xam ne. dafa am mbokk moo xam ne. dafa nekk ci xat-xat. nekk ci xat-xat. doon sàkku ndimbal. doon sàkku ndimbal. ñu waxtaanoon ci ak sëriñ bi ñu waxtaanoon ci ak sëriñ bi. mu ne woon suñu tasee fii ci barab bi. nañu ko laajal ndimbal. lu waay am rek. te tane ko ko. te man ko koo dimbalee ngir yàlla ñu bokk ko dajale jox ko mbokk moomu yàlla fajal ko aajoom fajal na sunuy aajo ñun ñépp